toujours dans votre actu du jour de ce lundi 2 septembre 2024 fa jógee dañuy dem seeti ji

fonds spéciaux la fonds politique. Mhm. pour man lu arame la. moo tax si suñu réforme ñu proposé pour lire suñu livre. lu bokk na ci première réforme ñu proposé. il faut supprimer ces caisses là. Macky Sall moom mbirum mbirum Covid bi mosu koo intéressé parce que bu leen fàtte ni ci jamono bi sénégalais yi jaaxle ñu ñu ra ñu tiital leen ba kenn ñemeetul ne leen kenn amatul génn au delà de 19 heures kenn amatul génn tata takkoo masque. te loolu yépp di won mesure yoo xam ne lu ñu mën a dégg la tëj jàkka tëj église tëj tëj tëj tëj ci jamono jooju moom mi ngi signé ay décret signé na fi décret honoré honoraria honoraria ñoo sénégalais yi moom mënul fecc li sénégalais yi fas sénégalais ñoo bëggoon assemblée mel nii ñoo bëggoon opposition bi am fa doole ba lu fay ñëw dinañ ko mën a càmbar te noonu lañ koy càmbaree nag te fan yi di ñëw assemblée nationale dina neex de li muy assemblée nationale dina donne un lieu de débat bo xamné ne dootul rek député nelaw heure wat parce que lolou la askan ni nam ci ñun duñu yem ci ñun dañuy dinañu proposer ay loi sur la table loi yu loi yu nañ dinañu kon yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo compilation di ñetti vidéo yi nga xamante le leader du parti Pastef actuel premier ministre de la République du Sénégal yëkkati woon na ko bi ci njëkk mooy li ñu tuddee woon caisse noire ñu soppi ko fonds spéciaux moom dem na ba nee na loolu dafa xaraam ñoom suñu excès dañ koy daal dindi kon bala ñuy supprimer au conseil des collectivités territoriales ak CSE yi nga xamante sénégalais yi ñoo ko voté par référendum ñom ñu am benn moyen muy décret bu président Bassirou Diomaye Faye mën jël pour ñu dakkal ko lu leen téwon njëkkee ci lool 11 milliards mon nek présidence 9 milliards nek primature muy nga xamanteni premier fois nek soko xeyma muy 20 milliards 20 milliards ci at bi soko xeyma ci juromi at mu jox la ñaata 2 fois 5 10 muy 100 milliards yo xamanteni Sénégal mën nako économiser 100 milliards yoy tay suñ ko dugulon ci ay projet ndaw yi dana ci am xey 100 milliards yoy suñ ko dugulon tay ci walu dund bi je crois que ciép dina wañé ko diw dina wañé ko suko dina wañé waye ñu ne ko fa ñuk ndax ñom la arrangé ba nopi bëgg dugg ci li nga xamanteni manam muy ay li CSE ak au conseil des collectivités territoriales deuxième bi ñoo ko déggandoo vidéo bi mu ñëw ci Covid bi bi fi accès mu doon benn phénomène bo xamante c'était mondial jamono ji nga xamante ni dañu tere ñëpp à partir de 19h kenn du génn kenn du def ñëpp a ñëpp jàq nee na fan la Macky Sall nekkoon jamono jooju Macky mi ngi di signer ay décret décret yooyu jural na Sénégal ay BRT décret yooyu jural na Sénégal ay train express régional décret yooyu jural na Sénégal tey ay bourses familiales décret yooyu jural na Sénégal tey ay stade dëkk yooyu jural na Sénégal tey ay pont dëkk yooyu jural na Sénégal tay ay université dëkk bi jur dëkk yooyu jural na Sénégal tay lepp lo xamanteni moy walu diplomatie ak géopolitique mais jamono jooju mom fan la nekkoon mom mi ngi laaj Macky Sall fan la nekkoon di signé ay décret sénégalais nak nag ngi koy laaj fan la nekkoon ndaxte su ngeen fatlikoo ci période Covid bi ñu nee bu kenn génn à partir de 19h heures yaakaar naa ni mom mi ci boppam mo tok ci point de presse ne naam dem naa fa mais 21h la fa dem fan la demone 21h suite Sweet lan moo ko yóbboon Sweet Beauté nee na dafa dafa féboron pour Adji Sarr ki nga xamanteni jangul massage d'al di koy massé kon jamono ji Macky Sall di signé ay décret mom jamono joju mi ngi garde corps baye bàyyi chauffeur ñep dem fofu ci suite masse. di massé kon donc à vous de juger diggante signé ay décret ak ñu téré ñep ñu génn 19 heures ak qui dem suite botti ban mo ci gën donc je crois que à vous de juger dans les commentaires troisième bi ñoko ko ci lan la ñew ci walu assemblée nationale Macky Sall waruñu ko may majorité boo xamante ni maanaam dafay nekk assemblée nationale ba mu jël fa lu ko neex tey ñoom ba ñu xamee loolu lu tax ñuy jël projet de loi di ko yóbbu assemblée nationale kon lañ doon xeexal Macky Sall démb tey bi ñu egtee ci régime bi ñoom laa même chose dañuy tegaat seen tànk bëgg ko dox alors que démb ñoom ñoo ko décrié woon kon l'honorable député Fanta Sall li mu wax nit mën na ci bàyyi xel gor ca wax da nit dangay ngay fonk say kàddu munoo bañ lii démb ba pare ñu fal la ci nga bëgg ci teg sa tànk parce que boobaa askan bi ne waa kii daf ñu jàppee ay nit wala daf ñu jàppee ay dog je crois que parfois dafa jot ñoom ñu toog réviser waat seen ay vidéo yo xamanteni ni ñu ko doon wax du temps de l'opposition avant que ñuy jël ben décision parce que des décision bu amener jël vidéo bo xamanteni ni mën na ñëw contredire leen motax mané pour le moment li nga xamanteni moy régime Bassirou Diomaye Faye ak son premier ministre amooguñu ben yoon ben opposant bu taxaw seen kanam ludul dul seen ay propre vidéo ludul dul seen ay propre kàddu ludul dul seen ay propre jëf yu ñu won dem ñoñu ño qu'on ak ñom di xex ak ñom kon nañu que c'est la coalition Diomaye ak Pastef jamono jii ñoom ñoo nekk di xeex ci seen biir ndaxte Pastef bu tey ak Pastef bu démb ñoom ñoo nekk di jàkkaarloo. du Masamba du Mademba du Réewande du bañ leen liñ fi tegoon démb loolu moo ñëw jàkkaarloog en face ak ñoom alors que liñ tegoon démb ak lu ñuy doxalee démb dafa mel ni yàlla ak yàlli dafa mel ni guddeeg bëccëg en tout cas muy compilation de vidéo boobu xamante ni indil nañ leen ko jëlee daal ci kii nga xamante ni mooy premier li nga xamante ni mooy projet de loi